baaxu góor tey da ngay daan rek ñu daan la bëri jëlu xuloo lamb jëlu di ŋaayu kii ñoo ko moom kii ñooy baroom yéen ñëpp yéen ñëpp ñëpp seen réew ngeen ñun ñooy dikk cosaani maamoo yéen yéen i déggal cosaani xam ni fii ñun ñoo ko moom làmb jëm du ñaaw yaa moo ñoo ngi lay fay ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli si yonent bi di sant samay ñaari waajura ah. di ñaanal suma sëriñ sëriñ Mouhamadou Moustapha Sy yàlla na fi yàgg loolu di wér ak capitaine Mame di ñaanal suma yaay fu tëdd yàlla na gën a fu di ñaanal maire aw ak père Bakar Seye ak imaam Hamidou Ndiaye yàlla na yàlla yërëm te naa àjjana di nuyu ñëpp di nuyu Sénégal gépp waaw Lac de suñ suñu la suñu lépp la man moom dama naan sama grand la suma papa la suma lépp la man moom xamante wuñu fii sax Lac de Guiers bu muy xam maa ngi waalo ñëwuma Dakar sax nekk booy bu ndaw di bëri ñu invité fa mu ñëw ba bi ma ñëwee town di entraîné géej di ko romb ñuy romante benn jour mu jég ji invité ma entraînement bi ma mu teg ma lu met bi ma tegee lu métti nag mu ni booy kii suba bu ñëwaatee ma xam ne champion champion lay doon suba mu ma xëy ñëwaat te dama ko daan romb naan daan bëri bi su ma ko jàppee si entraînement day daw mais jour bu ñëwee ma teg lu métti loo xamante ne mosuma ko ma leen romb su ma leen jàppoon ñu <laughs> na tam benn jour ma ñëw si moom entraînement mu teg ma loo xam ne man ëpp sama fit attanu ma ko mais boo bëggee dara bu la tegee lu métti da ngay ñëwaat ma xeeyaat ñëwaat mu ne ah ma nga ne champion moom a njëkk yóbbu saal moom moom ma njëkk a jëndal poti protéine moom moom ma njëkk a fayal saal xam jour dama jooy sama gaal ñëw ba gaalam ni ko mbër ma bëgg ngande dama benn yëre bu bu la mu ne boo ma toppee dawoo yëre bi dina fees tiset bi daa ngand boo toppee di bàyyi woo yëre bi dina fees del mois trois mois laa laa def noonu yëre bi fees moom moo ma jël si otoom ak ni ma nekkee boore boobu kenn xamagul Jackson moo taal otom ñëw ba sama buntu gaal la jël ma suba ngoor ñu dem saar wala géej wala din mu jàppale ma si lu ne la dëgg dama woon daan ñëw bii sax xam nga rek nekk boo di jàng métier su ma waree ñibbi waalo mu jëndal ma yëre jëndal ma dàll yëpp yaayam jël tissu may ko sama yaay kon loolu ndawul kon man moom ay làmb ñu ma yàgg bàyyi xel kooku ñu boolewuñu bàyyiwul ba ma siiw mu ñëw dafa ma teel a jël premier combat ba léegi arène mi ma may entraîné peut-être léegi la site internet yi bëri yooyu rek waaw gaa yi mën a gis affaire yooyu noonu mais ba may daan di ñëw see moon bay boobu sax la moom la doon entraîné boobu ay internet amul woon ak téléphone yi di filmer yi amul woon comprendre nga mu ne suma gannaaw bu baax mu soutenir ma si lu ne di ma may xaalis di ma jëndal protéine di ma fayal saal trois mois la ma doon fayandoo saal fayal boppam fayal ma di ma jël si di ma jox may ndékki di ma jox may reer di ma jëndal yële dafa defal na ma lépp si àdduna man maa ko desel mais moom desalutuma kon dañ koy ñaanal jàmm rek waaw man ku ma xool si moom mere ma mu nekk roi des man waxuma ak ñeen sax dama bëgg Modou Lo ñëw moom loolu mu nekk roi parce que la dëggee waaw VIP yëpp kenn kenn dàqu si benn xaaju defet la am waxuma defet de xaaju defet <laughs> waaw waaw benn genre daan yooyu maa nga ñaan nag yàlla defal ko jàmm defal ko champion def ko champion champion la def ko roi des arènes laa yow loolu des si laamu te wax dëgg yàlla surtout réew man kase boo yëpp lay jàppale ama boo yore sa jabar amoo combat ñu lay yee fajar dafa metti te du taxawlu kenn bu ko am gen mi woo ni day jog ak heure bu ñu ko mën a woo day jog nekk ak ñun gis nga depuis kañ lañ commencé man moom ba léegi chaque jour moo ko woowee day jog buñ paree fii dañuy ànd ñun ñëpp ñu ànd mu jëndal ñu ndékk ñun ñëpp yamul si entraîné kase ñu ndékk ñibbi bu ñu bëree mu ñëw esaat des fois mu jox ñu benn sengoor <laughs> kon kooku <laughs> waaw kooku dese lu la dara daal ñoo koy ñaanal jàmm mbër géey waaye yëpp koy ñaanal waaw doon droit des arènes su bu yàggul waaw déggoo moom géey waaye moom du gan quoi parce que yaakaar naa 100 pour cent fii la njëkkee mag ñi ñu déggoo booy tamit loolu ñu déggoo man man ak ñoom ñaabu ndaw ñoom caat waalo ñoom caat daaru faa ñëpp ay gaañ nan ñu duñ bokk entraînement mais parce que bokkuñu heure bu ñu amee combat mais fu ñu gisantee yoom dañuy seex jaamu seex lépp comprendre na ay Pape Thiam des fois dañuy ñëw fi may ma contact comprendre na ñoo ngi koy ñaanal wér moom yàlla dafa taw fe Pape Thiam waaw Pape Thiam waaw hmm. Hmm. loolu maa ngi koy soog a yëg léegi da feebar wallahi maa koy soog a yëg nii léegi ah oh massa waay na wallahi maa ngi soog a yëg ne tànk parce que sëñ Babacar maa ngi koy soog a yëg nii léegi yëguma ko woon man nag pour man nekk fi waaw incha allah bu neex yàlla maa ngi lay ñaanal yàlla la yàlla may wér ah yal na la yàlla taxaw ci lépp ci barki Seydina Mohamed ah massa waay gaynde maa ngi lay jéggul nag baax walaay yëguma ko woon massa gaynde massa Pape Thiam waaw ñoo ngi koy ñaanal jàmm bu baax suñu frère bu baax la danaan ñëw si mbër di may contact matinal bi mais peut-être tawat bi moo wottee tànk bi affaire yoroon booy ba am avenir la champion la ndaanaan la ñu ñëpp gën mën nga nekk ndaanaan ñun ñëpp waaw nekk ndaanaan Pape Thiam champion la yàlla na ko yàlla defal wér daal ndax ndaanaan la ñoo ngi ko ñaanal wér daal waaw ñax bëri la comme yeneen bëri rek man man lu may wax chaque jour rek man ñu may bëreel ñëpp ñax si gën a ñeme mun bay dama xam qualité ma xam samay qualité moo mos bëreel ñëpp ñax laas gën a ñeme te ñax moo gën a daan yomb daan si man waaw ñu may bëri ñëpp ñax moo si gën a yomb daan non loolu naa ko wax sax loolu dara. mais bu jour ba incha allah di xam ne ñaxal yomb na daan te du yàgg incha allah combat bu gaaw lay na a doon comme na woon foon woon rek daan cëppi cëppi ñëw si yow waaw di santaat yàlla rek xam ne ñun ay jàmman rek waaw nit moom noo mel nag suñu borom moo la ko def quoi ñuy wax sa jour yàlla bu ñu rëy yàlla ñu bew yàlla bu ñu yëg si sa waaw ñoom ñaan daal bisu mag la bisu màgg la di ñaan suñu borom yàlla ñu suturaal moom mu yor ndam te ndam yomb ko ñun ñun ñi jaam ndam jëfeñu yàlla nañu yombalal ndam ni jour waaw waaw ñooy waajal bu baax bëgg mobiliser nag di woo ñëpp senegal ñëpp ñëw waaw Guédiawaye bun bi Kër Massar xam nga jàmm wala waala waale képp kuy waala waala ñoo lay woo moo des stade bi ko bëgg dëpp dóom déggoon naa la waaw dégg na ma wax bu baax bu baax a baax sax ah. waaw ah. le 25 di nga xam ne na. da ngay da ngay def waaw booy booy bëreeg Jackson kay di nga entraîné <laughs> di nga entraîné c'est normal mi ngi si entraînement yi baax mi ngi état mi ngi lépp mais bu jour waa di nga ko xeeb wallaahi. seetaan hmm. loolu dara man duma pambaay moom du kii yooyu yëpp du dara bu jour waa daal di nga xam ne ndaanaan dëgg moo bëree moom li may chaque jour rek papa da leen koy wax du bàyyi xel yaa ngi koy wax signature bàyyi ko xel mën naa ñëw signature nga xeeb mën naa ñëw interview nga xeeb mais ba jour bar fi génnee loxoom si diggante bi ñaar ñi bokkuñ sax. combat ak bëre. bëre waaw léppay ñëw kay. xeex bëre kay jeexal bëre kese ko jeexal dóor kese du ko jeexal ñax sama combat man moom xeex bëree koy jeexal. xeex bëre te du yàgg sa incha allah du yàgg de bu taxawee du yàgg bu dawee du yàgg <laughs> bu taxawee ma kalaate ko daan ko bu dawee ma dàq ji ko mu génn am cinq avertissement incha allah si kàttanu yàlla su ma yàlla may wér rek bu taxawee ma jàpp ko kalaate ko daan ko bu dawee ma dàq ji ko mu am cinq avertissement ñu jox sama victoire mu ñibbi waaw maa ngi koy gis waaw waaw mooy lu ma wax rek chaque jour entraînement daal mooy lépp man lu wax chaque jour samay supporter rek man du ma ñëw làmb ba ñàkk entraînement du ma ñëw làmb wane yaafus mais ndam ak defet moom yàlla moo ko yor waaw mais chaque jour moom biir làmb biir géew dama si wane ful ak fayda waaw. Hmm. di ñaan suñu bor di woo ñëpp di woo waa Guédiawaye yëpp di woo waa Boune waa Kër Massar xam nga di woo waala waala yëpp yëpp koy waala waala ñoo lay woo di woo tamit ñoom Pape Mama Fall suñu Lat Diop. président Pafal Lat Diop DG xam nga di Jaspera ñooy woo ñëpp di ñoom maam góor xam nga di woo ñoom Assane xam nga képp di woo daal liiru jaan sumu pap sumu lépp moo njaay directeur Seydi Malen ñoo ngi koy liiru monument waaw Dieye production Kanji production xam nga woo ñëpp di daal ñëpp ñu jàpp si combat bi mbër moom pare na quoi gars yi pare moo waaw di woo Mudu waaw di woo tamit xam nga Moussa ñoo ngi koy woo bu mi jënd ticket yi gars dama bëgg jënd ñu bolo xam nga stade bi fees dell ñooy woo ñëpp lii nag bu ko dagg parce que ñii <laughs> ñooy tax stade bi fees quoi waaw Karajo jàpp si rek nga génnal ma lii nii parce que lii mooy tax xam am baaba laay jóob waa bun ma fi à deux roues yi nan ñëw ñoom Issa Dave bu Jackson comprendre di woo ñëpp waaw Fallou bu Jackson <laughs> maa woo ñëpp daal waaw Cheikh Seck waaw Pam Mboub maa ngi koy woo bu baax mu ñëw jàpp si waaw di woo ñëpp sarata sarata sinangindoo fan ñu nga naan cosaan ñu tagg ñoo jaraway te ñoo dim ñaay